mbokkentoon na ci yaatal vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñi di koy yéen ci la gën a fës ñu daal di koy door nag Cheikh Abdou Bara Dolly tuuma topp na ko nag foofee ci diwaanu Touba Mbacke ginnaaw ànd ak Amadou Ba foofee nag ci diwaanu Touba gone yi fii la daal dina ko nag fii doo fi amee jàmm ginnaaw nag bi nga xamante ne bii da nga ànd jeeg nga xamante ne moo di Amadou Ba weñ la rek nee naan photo yi mu daal dal loolee lan ko daal di duppee nag moom mi di Cheikh Abdou Bara Dolly foofee nag ci biir Touba ña ngi koy xamal nag ne ko dóor yu métti nag dinañ ko ko fa amal foofe ci élection élection yi nga xamante ni moom la ñu dëngmal nag muy candidat boobee di Amadou Ba loolee la mbokki Touba yooyee daal di xamle ginnaaw nag ñoom ñi nga xamante ne bi ñoo féetee ci Pastef di patriote yi loolu lañu daal di xamal kii di Cheikh Abdou Bara Dolly ginnaaw ak di Amadou Ba waaye nag ñun fàttali ne foofee ci diwaanu kii di président Macky daanaka nag ndam lu tax lool mosuñ ko faa dégg ngir mu daal ko fay am waaye nag bile yoon kii di Cheikh Abdou Bara Dolly nag dafa fas yéene nag gertu ngir kii di Amadou Ba daal di mën a gañe nag foofee ci diwaanu Touba Mbacké ak lëkka wër loolee nag di tax na foofale nag ca commune bu Touba niki tey jëlee nag kii di président Ousmane Sonko nag war a wàcc foofale ànd kook nag ay naataangoom yi nga xamante ne bii nag ñoo féete foofee ca diwaanu Touba campagne ba nag ma ngay door foofee nag ca yeneen i candidat yi ku ci mel ni Pape Djibril Fall ak ki nga xamante bii moo di Déthié Fall waaye nag niki foofee nag ca Thiès wala ca Tivaouane dal di daje nag ak ki nga xamante bii moo di Malick Gakou saafonte nag lan daal di def ñoom ñaar ñooñee niki tey jile ci campagne électorale boobee ñu nekk.